هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر أعوذ الآذان بالله من الشيطان الرجيم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم
bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baada asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu àq di leen baal àq di amaat mbégteeg kontaante ñëwaat ak yéen ci suñu tafsirul quran comme niñ koy defee bis bu nekk ci waxtu bi xam ngeen ne nag tey la suñu fukkeelu fan ak ñeent ci weeru koor bi ba tey ñu ngi ci fukki fan yi nga xam ne mooy ci digg bi ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu ñu eggali ko am niñ ko commencé defal ñu tamit dégg ak topp xam ngeen ne démb ñu ngi woon suratul muzammil ñu ngi woon ba fa axaznaahu axzaw wabila fi yàlla di waxee ni ba firawna bañee topp yenent yàlla Muusa dama ko jàpp jàpp jàpp goo xamante ni gu metti la maanaam dama ko labal ca géej ga tey ñuy commencé yàlla ne di wax ak doomu aadama yi na fa kayfa tattaquuna in kafartum yawman yaj'alul wildaana shiiba yàlla subhaanahu wa taala mu ne nan ngeen di mën a fegalee seen bopp si bëggalum safara fa kayfa tattaquun nan ngeen mën a fexe nan ngeen di bëgg fegelee leen seen bopp mbëggalum safara nan ngeen di mën a aaree seen bopp ci mbëggalum safara su fekkee weddi ngeen in kafartum su fekkee weddi ngeen yàlla si bis boo xam ne day ñëw gis nga bis boobu yàlla nee na yow may yajalul wildaana shiba bis bi nga xamante ne xale yi ndaw yi dañuy bejjaaw bis boobu xale yi bu ñu ñëwee seen kanamu bopp yi karaw bopp yi ci kanam dafay weex tàll ak bejjaaw lan moo waral ñuy bejjaaw ndax tiitaay bi ñuy àndal ndax metitu bis boobu ndax njàqare ga fa am ndax tàngaayu bis ba ak la mu ànd àndoon ànd àndal moo tax yàlla ne fa kayfa tattaquun nan ngeen di mën a fegeele seen bopp mbugalum safara in kafartum bu fekkee weddi ngeen yàlla yow may bis bi nga xamante ni yajalul wildaana yàlla dina def xale yi door a juddu xale yu ndaw yi shiiban ñu nekk ñoo xam ne dañoo bijaaw ba boo leen gisee sax da ngay defe ne ay mag lañ fekk ay xale lañ waaye wedd gi ñu tàngaayu bis bi ak métit bi moo leen def loo moo leen bijaaw loo loolu yàlla mu ne bis boobu asamaau munfatirum bi wa kaana waaduhu mafuula mu ne asamaan si si boppam sax dafay jàq ci bis boobu dafay nekk loo xamante ni dafay xotteeku day day tasaaroo yaa asamaan si yàlla daf koy dindi teg ko fële malaaka yëpp wàcc nekk ci suuf yàlla mu ne wa kaana waaduhu mafuulan yàlla lu mu wax def ko waxam jooju nga xam ne daf koo wax dina ko def moom yàlla si bis boobu nu mu mel ak tàngaay bi ak mettit bi nga xamante ni moom la bis boobu metti yàlla mu ne inna hadihi tazkira fa man shaa attaxada ila rabbihi sabila mu ne lii ma leen di wax de yéen xeetu muhammad alquran ji ma wàcc ci kaw muhammad histoire yi ma leen nettali yowmal xiyaam bi war a ñëw te ñëwagul ma nettali leen ko tazkiratun ab fàttali la dama leen di fàttali pour li daloon gaa yu baax gaa yi leen jiitu woon mu dal leen loolu laay bañ li daloon gaa yu firawna yi mu dal leen moo tax ma indi leen lii pour lan mu nekk waa waaraate mu nekk fàttali waaye nag faman shaa attaxada ila rabbihi sabilan képp koo xamante ne nii day neex na la mën ngaa jàpp ci sa yoonu borom mu nekk sa yoon gis nga boo toppee sa yoonu borom mooy ngay jaamu yàlla bañ koo mooy bañ koo bokkaale topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu la neexee nga jàpp sa yoonu borom nga def ko muy sa yoon te yoon woo jàpp mu bu dul yoonu borom bi mooy nga yoon bi jàppoo ci dara moo tax yàlla ne fa man shaa nag képp ku ku ko soob ku ko neex taxasa na jàpp ilaa rabbihi si boromam jàpp ci boromam mu def ko lan sabilan mu jël yoonu borom bi mu def ko yoon yoonu borom bi mooy lan mooy yoonu siraatal mustaqim mooy yoonu jub yàlla daal di continuer nag aaya bii nga xam ne wala aaya yii di ñëw moo tax yàlla si la yàlla wàccalee yonent bi sallallahu alayhi wasallam xiyaamu la li mu nekk farata waaye mu def ko sunna képp ku ko mën def ko ku ko mënul bañ koo def ndax ba ko yàlla digalee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu di ko def mu nekk farata metti woon na lool ba metti ci saxaaba yi nee nañ ba dafa mujjoon seen tànk yépp neew yi ndax guddi gi dañuy fanaanee julli ba li ñuy nelaw tuuti la wa kaanu qalilan min al-layli maa yahjaun yàlla nee na tuuti lañ daan tëdd gaa yu baax yooyu ñoom sax dañ koo continuer waaye dafa mujj nekk nag nekkul farata waaye mu nekk loo xamante ni sunna la rek ku mu neex daal di koy def ndax yàlla xam na ni lii dafa nekk loo xam ne lu diis la moo tax mu ne inna rabbaka yaalamu annaka taquumu adna min sulusay layli wa nisfi wa nisfahu wa sulusa mu ne yàlla si boppam xam na li nga daan taxaw di julli moom gis na ko xam na ko mu ne danga daan taxaw li nga xam ne moo lu gën a bari li gën a jege ñaari xaaju guddi gi ñetteelu xaaj bi wala ñaari ñetteelu xaaj bi boo xaajee guddi gi ñetti xaaj ñaari xaaj yëpp danga ko daan taxaw wa nisfahu léeg-léeg sax nga taxaw génn wàllu guddi gi wa sulusahu léeg-léeg nga xaaj ko ñetti xaaj taxaw benn xaaj bi waaye loolu dafa nekkoon loo xamante ni lu metti la lool moo tax yàlla ne ko man yàlla xam naa ni danga daan li nga daan taxaw di julli ci guddi gi man xam naa loolu yàlla mu ne wa taifatum min alladina maaka ab ab kuréel boo xam ne dañu àndoon ak yow mooy saxaaba yi nga xam ni ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam commencé di def loolu rek dañ daan def loolu ñoom tamit ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam di julli guddi waaye yàlla mu ne wallahu yuqaddiru layla wan nahar alima an lan tuhsuuhu fa taaba aleykum yàlla mu ne man yàlla man maa xam li nga xamante ni moom laay dogal ci guddi gi ak si bëccëg bi lii xew ci guddi gi ak si bëccëg bi man yàlla rek man maa ko xam amul keneen koo xam ni xam na ko mu ne te tamit xam naa ni alima xam na moom yàlla ay sa yakun an lan tux suuhu ne lii mënu leen koo matal bu yàggee sax da ngeen dem ba feebar wala ngeen yokkat wala dootu leen ko mën a matal te kon bu boobaa mbugal mën na cee juddoo ndax bu dee farata moom boo ko deful da ngay am mbugal moo tax yàlla ne alima an lan tux suuhu man yàlla xam naa ne lii mënu leen koo matal fa taaba aleykum ma nangul leen tuub léegi nag mbayal naa leen oyofal naa leen ko nangul naa leen tuub ci li nga xamante ni moom mooy li amoon muy taxawaayu guddi googu ñu doon def li nga xamante ni moom mooy farata yàlla subhaanahu wa taala mu ne fa taaba aleykum mën ngaa wax mu mu oyofal leen ko tamit mu ne léegi nag faqra'u ma tayassara min alqur'ani alima ay sa an sa yakunu minkum marda wa axaruna yadribuuna fi l ardi yabtaxuuna min fadlillah wa axaruna yuqaatiluuna fi sabilillah yàlla mu ne jàng leen li leen yomb ci alquran jàng leen lu oyof bu leen neexee jàng leen nu mu leen nu ngeen ko sentir daal ci alquran lépp loo xam ne jàppandi na si yéen même bu dee benn fatiha nga mokkal sax booy ja booy xiyaamu leen li mën nga koo jàng maa tayassara min alquran même bu fekkee benn fatiha nga mokkal boo jugee guddi di julli mën nga koo jàng di ko jullee ànd ak nag dem di continuer sa jàng li nga xamante ni moom ngay jàng kon donte kon tamit ra ñaari rakkaa nga julli bu la neexee jàng leen daal loo xamante ni dina oyof ak lu yomb ci yéen yàlla ndax lan mu ne xam naa ne dina am ci yéen ñoo xamante ni alima an sa yaku an sa yakunu minkum marda yàlla mu ne xam naa ne dina am si yéen ñu feebar te xam nga ne julli buñ ko xasee ba farataal ci nit ki même soo feebaree sax danga koy def même soo feebaree ba mënoo jug sax danga koy def mën ngaa tëdd def ko wala nga toog def ko wala yaa xam ni nga ko sentiree kon yàlla mu ne xam naa ni dina am ñoo xam ne dañuy feebar ci yéen suñu farataaloon tey taxawaayu xiyaamu lay chaque jour nga jug guddi par force julli am na ñoo xam ne loolu seen yaram àttanu ko wala am na ñoo xam ne dinañ dem ba feebar te duñ ko mën a ñàkk def ndax day nekk farata ñeel si ñeel leen yàlla mu ne ñeneen ñi waaxaruuna yadribuuna fil ardi yabtaxuuna min fadlillah am na ñeneen ñoo xam ni dañoo nekk ci kaw suuf di daal di uti li nga xamante ni mooy xéewalu yàlla yi léegi nag mënoo taxaw guddi gi yëpp xëy bugg a liggéey day metti moo tax yàlla ne ñooñ tamit tax na ma oyofal li nga xamante ni mooy julli guddi googu ndax ñoom dañoo war a jug xëy dem liggéey yi dem sàkku ji li nga xamante ne ni moom mooy wërsëg bi nga xamante ni moom la yàlla di séddale te ku kër këri rek mu daal la ciy jox mu ne wa wa aqaruuna yuqaatiluuna fi sabilillah am na si ñoo xam ne tamit dañuy jihaat ci yoonu yàlla kon dañu il faut ñu tëdd si guddi gi récupérer nelaw mooy ñi nga xamante ne nii ñoom jihaat sax moo leen gënal ay jaay ak jënd ak yooyu yëpp ñoom defuñu ko waaye jihaad la ñuy def fii sabilillah mu ne ñooñu tamit ah dañ leen di sóoraale ci li nga xamante ne ni moom mooy xiyaamu layl bi yàlla daal nee na faqra'u maa tayassara minhu kon daal léegi jàng leen li nga xamante ni moom moom leen yombal lépp nu mu ko nu mu gën a oyofee rek bu leen neexee ngeen defe ko noonu ci xiyaamu layl bi en tout cas daal lu mu néew néew néew même bu dee ñaari ràkk sax nga jug ko julli guddi sunna la te nekk na loo xamante ni lu baax la yàlla mu ne wa aqimu solata wa aatu zakata wa aqridu llaha qardan xasanan mu ne waaye lu munti xew daal moom li ak li ma leen oyofalal lépp mooy taxawal leen julli bu ngeen ko xëyee bu guddi gi lu mu néew néew même bu dee ñaari ràkk sax julli leen ci ak julli farata tamit ngeen julli wala nga ni yàlla léegi nee na kon taxawal leen julli farata yi mu nekk loo xam ne farata la ñel leen waaye naafila gi defee leen ko su fekkente ne mën ngeen ko rek ngeen def ko mu ne tamit ngeen joxe azaka su ngeen ko amee ngeen joxe azaka waaye bu ngeen joxee azaka ba pare xam nga fii yàlla dafay leeral lu am solo soo jullee ba pare mën ngaa joxe azaka si julli gi maanaam naafila ñu ngi jéggal naafila boobu mi ngi mel desit desit yu desit yu baax yi rek la boo jullee ba pare nga naafila ndax xam ngeen ni yowmal xiyaam bu ñu dekkee yàlla subhanahu wa taala bu reglee jaam bi ay mbiram manqué maanaam ay tiyaabaam manqué dañuy jël ci julli yi mu daan julli naafila mottalee ko si li nga xamante ni mooy ay tiyaabaam moo tax julli guddi baax wala julli naafila yàlla mu ne kon taxawal leen julli waaye ngeen joxe azaka bu ngeen joxee tamit xaalis bi li ci war bu desee ngeen joxe azaka wa aqridu llaha qardan xasanan mu ne ngeen lebal yàlla bor bu rafet yàlla loo ko lebal mu fay la ko soo ko lebalee julli gu rafet mu fay la fay gu rafet nga julli ba pare jugaat ci guddi gi julli naafila pour yàlla kese lebal ko ko mu fay la ko nga joxe azaka de génnee sa xaalis def ko ci yoonu yàlla yàlla dala koy fay moo tax mu ne wa aqridu llaha qardan xasanan mu ne lebal leen seen boroom bor boo xam ne bu rafet lay doon mu ne tekkat na ngeen xam ni wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allahi huwa xayran wa azama ajran lépp lu ngeen xamante ni da ngeen koo jiital ci seen bakkan ci seen bopp da ngeen koo jiital ci seen bàmmeel da ngeen koo jiital yowmal xiyaam balaa ngeen di egsi mu ne di ngeen ko fekk fa yàlla yàlla daf leen koy dencal lépp loo jiital ci lu baax moo xam julli la moo xam jihaad la moo xam woor la moo xam joxe azaka la moo xam lépp loo def te muy lu baax nga def ko te yàlla rek tax def ko ni ko sa sa borom sante xamal ni loolu ab denc la boo jëlee alal tamit nga jox nga def ko fii sabilillah dépensé ko ci yoonu yàlla ab denc la tajiduhu inda allahi di ngeen ko fekk fa yàlla mu dencal leen ko huwa xayran wa azam ajran moo tax benn waay bu mu génnee àdduna am ku ñëw taxaw ci bàmmeel bi naan ko ah yow de li nga fa bàyyi woon ci alal séddoo nañ ko jabar yi jabar yi doon nañ ko kër yi tamit jël nañ ko xaw ma nag ndax bàyyi woon nga fi daraam déet sa si sa biir bàmmeel mu ne en tout cas daal lépp lu ma defoon ci lu baax fekk naa ko fii ci sama bàmmeel lépp lu ma fa bàyyi nag perte naa ko kon àdduna lépp loo def lu baax yaa ngi koy fekk sa bàmmeel boo dajalee alal ji ba mu bari nga bàyyi ko fi ñi koy doon doon nga ko fii bàyyil waaye yow dangaa war a jiital alal jooju ci def lu baax jiital sa yaram sa lépp ci def lu baax tajiduhu inda allahi di ngeen ko fekk ca yàlla huwa xayran mu nekk loo xamante ni nag lu baax lay doon ñeel leen wa awama ajran ba pare yàlla daf koy ful def ko fay goo xam ne da leen koy fay fay goo xam ne gu rëy lay doon fay goo xam ne gu màgg lay doon yàlla mu ne lii lépp nag bu paasee wastaghfirullaha ay waay jéggalu leen yàlla gis nga bu ngeen juumee wala ngeen fàtte wala ngeen sàggan wala ngeen neenal mu ne wastaghfirullaha jéggalu leen yàlla ndax lan inna allaha ghafurur rahim ndax yàlla kat ku bëri ku mën a jéggale la waaye ku bëri yërmande la kon ak lu munti xew dañuy jéggalu suñu borom subhanahu wa taala suñ ko jéggaloo dinañ fekk mu nekk buur boo xam ne bu mën a jéggale la waaye tamit bu bëri yërmande la kon mbokk yi lii mooy li nga xamante ni moom la ñu indiloon ci suratul muzammil di ñaan yàlla subhanahu wa taala defal ñu dégg ak topp diñ koy waxee saa su ne ñaan yaa ngi egsi encouragement yi ñi ngi egsi ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala defal ñu rek dégg ak topp tafsiru tay bi nag ki ma ko may muy sama doom sama taaw bu góor macha allah al imaamul Buxaari saw ak yaayam Fanjaay nga xam ne mooy sama genn wàll mooy sama lépp ak nga xamante ni mooy Baba Ahmad Saw sama turandoo Ndey Faatu ak mboolem waa kër ga yëpp daal tey ñoom la ñu may li nga xam ne mooy tafsirul Qur'an bi di ñaan yàlla defal ñu jàmm defal leen ko defal ko mboolem jullit aqulu ma tasmaun wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.